لوطن به نفى ما قني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هزم بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بالسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهل يكون لنا هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا السلام عليكم mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant Eh, di wax rek ne dañuy gërëm bu baax a baax a baax parents d'élèves yi euh, sant leen si confiance bi nga xamante ni moom la ñu am si groupe scolaire Xidma euh, li nga xamante ni moom la ñu def muy sortie pédagogique bi dafa bokk si activités yi nga xamante nii moom mooy euh, doxal école bi si wàllu njàngum xale yi tey nag soo gisee ñu organiser sorti bi dafa nekk sorti boo xamante ni dina permettre xale yi li nga xamante ni dañ leen ko doon expliquer classe Euh, te daanuñu ko woon gis ñu teg ci seen bët parce que xale li nga xamante nii moom la dund euh, nekk lu muy gaaw a fàtte bokkul ak li nga xam ne dañ ko expliquer wala mu jàng ko ci leçon loolu ñaar ba ñetti at ci kanam mun na ko fàtte mais li mu dund euh, fii ak giiru dundam incha allahu taala du ko fàtte. et sortie bi aussi soo gisee ñu boole mag ñi ak xale yi day permettre xale yi ak mag ñi ñu jaxasoo mag ñi am yërmande si xale yi mun leen a mun leen a mun leen a jàppale. parce que di nga gis xale bu soxla ndox si kanam tuuti euh, ndoxam jeex am mag mu ko si dimbali wala leneen ak leneen ak leneen euh, loolu la ñu jublu également si sorti bi di wax aussi que ne sortie bi li nga xamante ni dañ ko doon expliquer euh, si classe yi te xale yi amuñoon occasion ñu teg si seen bët tey mun nañ si teg si seen bët et di wax également que ne njariñ li mu am encore une fois que ne dina pousser xale yi à ce que ñuy interroger wu boo demee tey ba euh, fii si bërëb bi ñu jëm muy bërëbu parc Hann nga xam ne création bi depuis 1903 la xale yi suñu gisee euh, animaux yi ñu doon gis si télé yi ñu gis ko jaxaran dinañ commencé interroger xam xale euh, animaux yooyu naka la ñuy dundee seen comportement ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ni dina permettre xale yi ñoom si lu leen waxul ñoom seen wàllu bopp ñu commencé nag di interroger wu te loolu lañ siy poussé quoi pour maanaam li nga xamante ni euh, moom laa doon wax léegi que ne ñoom ñu mën a euh, euh, seen curiosité maanaam ñu mën ko ñu mën ko di ñu mën ko creuser bu baax a baax a baax a baax pour faire pour faire des recherches quoi. بالمصطفى والآل والصحابة هبلي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم والاكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية بملكه رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل السلام عليكم ورحمة الله Alors c'est Tout d'abord, euh, je voudrais tout simplement me présenter. C'est Moussé Tchandoum, directeur euh, pédagogique du groupe scolaire Khidma. Euh, tout d'abord, je tiens à remercier tous les parents d'élèves qui ont porté leur confiance au groupe scolaire Khidma. Et non seulement ils ont porté leur confiance au groupe scolaire Khidma, mais ce sont des parents euh, qui ne cessent jamais de nous apporter leur soutien. Alors aujourd'hui, euh, c'est un moment de, de satisfaction euh, pour la réussite, je veux dire, euh, euh de côté, du côté participatif euh, de cette sortie. Vous savez que cette sortie scolaire fait partie de nos activités euh, pédagogiques. En fait, nous visons par cette sortie à tout simplement Euh, rendre concret les apprentissages, les, les apprentissages pardon, qui sont parfois euh, abstraits. Et ça permet également à nos apprenants de stimuler leur, euh, euh leur intellectuel, euh, tout simplement. Euh, stimuler, en fait, leur curiosité, j'allais dire, intellectuelle, et leur pousser à faire des recherches, à s'étonner au monde qui les, qui les entoure. Euh, c'est à ce niveau que nous avons organisé euh, cette sortie scolaire. Et au-delà euh, de cette sortie scolaire, ce que nous visons aussi, c'est de permettre à nos élèves de s'entraider. Parce que tout simplement, euh, aujourd'hui, nous avons regroupé euh, les grands élèves et les petits élèves. وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من خدمني أوزارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي يا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذاي يا رب أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء ولتكف عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان وتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلح في يدي يوسف Youm laa tudd di monsieur Youm di surveillant général collège en même temps professeur de mathématiques donc comme je l'ai dit ah dañ fi ñëw avec un effectif de 600 élèves parce que comme vous le savez groupe scolaire Xidma école la boo xamante ne dafa composé élémentaire ak collège donc euh, pour pour ñoom ñëpp ah y compris le l'élémentaire et le collège dañuy jàng euh, français ah pour français tamit dañuy jël la programme normal dañuy jàng alxuraan comme dañuy jàng arab donc dañ fi ñëwoon ak élève yëpp pour ñu comprendre un peu bon l'environnement quoi du comment dire du parc parce que euh, en histoire géographie et en en SVT dañuy dañuy dañuy dañuy jàng yenn cours yi de manière très théorique maintenant pour ñëwee fii si la ñuy xam gis de manière très pratique en tout cas liñ leen jàngal à l'école parce que euh, euh, site bi lu tax ñu taamu ko dafa nekk site boo xam ne bu intéressant la pour les élèves ah, mooy parc Hann parce que y a le côté géo fii. Eh, eh, kii yi di nekk mala yi di nekk yaa aussi côté lag bi fi nga ak ak la forêt donc milieu yooyu yëpp parce que nit moom da nga war a xam euh, l'environnement dans lequel tu vis donc euh, yooyu dañ leen koy jàngal euh, en SVT comme en histoire géographie donc bu ñëwee fii dina leen permettre dañ manière très pratique ñu am une étude du milieu quoi waaw bon loolu je crois que loolu laa waxoon na loolu si tënk daal loolu laa doon jàpp si li tax ñu ñëw fii doole si tamit pour sortir fii c'est notre première édition mais yàgg nañ génn dem yeneen milieu dem nañ fi y a six ans de cela dem nañ fi euh, gore avec les élèves ah mooy euh, euh, comment dirais je j'ai oublié dem nañ fi tamit Maria Daaru Xaan kii Mamel excusez dem nañ fi tamit monument de la renaissance yooyu yëpp ce sont des milieux yoo xamante ne dina permettre élève bi def fa benn jàng bi ne euh, sorte pédagogique bi mooy sorte la boo xam ne yow li ngay gis de manière très théorique boo ñëwee fii nga pratiqué ko waaw maison des esclaves dem nañ fa tamit à Gorée ah il y a six ans de cela donc milieu bu intéressant la surtout fii yooyu yi fee itam ce de des milieux très important intéressant fii tam milieu bu intéressant la te contre euh, euh, incha allah bëgg nañ daal chaque année ñuy def yu mel nii daal des parce que lu yi di soxla la école boo fa nekkee c'est vrai da ngay théorie rek ah mais foog nga génn pour am de manière très pratique li nga xamante ne moom lañ lay jàngal waaw salaamaaleykum ya baru rahmatuka arja indana min amalin naksibuhu faghfir lana wa li jami'il muslimina ajma'in wal muslimati kullihinna kulla hin wa la tuakhidna bisu'il adabi wa bit tajarrui wa kusri al-la'ibi فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواقبنا السلام عليكم ñu ngi leen di ziar bu baax waaw man maa ngi tudd sëñ Moustapha Mbay nekk ci daara ji Muxaddamatul Xidma mooy al mujammaul madrasi lil xidma muy groupe scolaire xidma man ma nekk nag ci ñi nga xam ne ñu jiite section coranique bi man maa ko jiite en même temps tamit côté pédagogique bi ci côté arabe bi man maa ko jiite ci biir loolu it léeg-léeg it ñu yoraale classe waaye ñoo yoraale tamit classe alxuraan ginnaaw loolu comme niñ ko xamee daara ji nekk daara joo xam ne dañ fiy jàngee alxuraan di fi jàngee arabe di fi jàngee français moo tax ngeen dégg ma lim ñaari fonction yooyu muy section arabe section coranique bu doon loo xam tamit dañ fiy jàngee alxuraan di ko mokkal ndax programme dafa nekk programme boo xam ne boo amee lu tollook juróom-benni at da ngay wàcc am na sax ñoo xam ne mën nañu am lu matul juróom-benni at ñu wàcc loolu nag dafay aju léeg-léeg ci xel yi su ko defee nag ci collège bi ñuy toppaat bu ñuy topp nag ba euh, mokkal ci diggante bi dañuy jàngale ay téere xam-xam muy ay majalis loolu nag jotewul ak dara nag seen programme yi nga xam ne moom la ñuy jàng ci euh, ci biir classe yi muy programme matière diine yi ak programme matière arabe yi yooyu yëpp dañ koy jàng ci biir classe yi jotewul ak dara programme majalis bi nga xam ne moom lañ leen tëralal euh, ginnaaw loolu it sorte bi nga xam ne moom la ñu amal tey nekk nag bis bu am solo ci ci ndongo yi ndongo yi nag mën cee jàngee lu bari ndax comme ni ñu ko waxee léegi am na côté français am côté arabe côté arabe bi tamit xale yi dañ ci mën a euh, découvrir ay leçons yu am solo ay njàngat yu am solo yoo xam ne dañ ko mën a jàngatee ci génn bi ñu génn tey en baax na ci ñoom dafay la leen di soulager gën a nàmmat xel kon daal lii daal ci gàttal rek tënk mën naa ne lii mooy dañ doon tënk di leen jaajëfal tamit ci yéen ci liggéey bu am solo bi ma macha allah yal yàlla jëmale lépp kanam. donc euh, je m'appelle euh, Serigne Khadim Diagne directeur général du groupe scolaire Khidma qui est un, un établissement spécialisé dans les études coraniques et les sciences religieuses. Euh, et qui enseigne en même temps en français le programme de l'officiel, euh, le, le, programme de l'éducation nationale, c'est-à-dire le programme officiel. Donc euh, aujourd'hui, nous avons effectué cette visite euh, qui est un prolongement des activités qui se déroulent à l'école entre les quatre murs et on l'appelle des activités muros Donc cette visite entre dans le cadre du prolongement de ces activités. Donc c'est pour permettre aux enfants aussi de concrétiser ce qu'ils ont vu en classe. Euh, parce que nous savons tous que euh, la plupart des activités qui sont faites euh, en classe sont abstraites. Donc euh, ces visites permettent aux élèves de pouvoir euh, euh, concrétiser ce qu'ils qu qu voient en classe. Donc et à l'issue de cette visite aussi, on a constaté que Euh, la visite a été productive dans la mesure où elle a permis aux élèves de pouvoir euh, visiter et de pouvoir voir des animaux, même nous, même moi en tant que directeur. C'est la première fois que j'ai que j'ai vu un lion, franchement parler. Euh, donc c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, les enfants aussi se sont épanouis parce que l'épanouissement aussi fait partie de la pédagogie. L'épanouissement fait partie de la pédagogie. Donc euh, nous, nous, nous, trouvons cette visite très, très, très, très productive, euh, très intéressante à la limite même. Donc euh, nous remercions tout le personnels administratif, les enseignants, les professeurs, euh, avec, leurs avec leur engagement sans faille, parce qu'on a constaté que ce pas facile d'encadrer les enfants, parce que euh, on a vu qu'ils sont, qu'ils sont très, très, très agités. avec l'engouement aussi qu'on a, qu'on noté, qu'on a noté en eux. Donc c'est pourquoi nu saluons vraiment la participation de tout le personnel, euh, aussi bien les enseignants que les administrateurs. Donc nu nous, nous, sommes très contents. Nous remercions aussi les parents parce qu'on a vu que euh, la date qu'on a retenue est un peu difficile par rapport, euh, par rapport, par rapport aux moyens, aux moyens financiers. Mais quand même, tous les parents on participé. Vraiment, nous, nous, re, nous remercions tous les parents. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Serigne Khadim Diagne man maay directeur établissement group scolaire Khidma muy établissement boo xam ne dafay jàngale alxuraan ak matière diine yi mais en même temps aussi muy jàngale ci français li nga xam ne moom mooy le programme officiel de l' e de de l' éducation nationale. donc visite bi aussi dafa dugg rek ci cadre euh, permettre xale yi li ñuy jàng ci biir classe yi bu ñu génnee ñu mën koo ñu mën koo gis ndax classe bi li ñuy jàng du luñ mën a teg loxo maanaam du lu concret waaye lu abstrait la donc génn gi ñuy génn danañ gis yoo xam ne gisuñ ko woon beneen bi tamit. ñun ñi nga xam ne ñoo jiitee daara ji tamit ku mel ni man permettre na ma wax dëgg fa yàlla gis naa fi ay rab yoo xam ne maa ngi leen di door gis muy lu am solo donc euh, ñu ngi sant aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel enseignant bi di sant ñi nga administré euh, ci encadrement bi nga xam ne def nañ ko ndax yombul parce que xale yi bu ñu génnee dañuy agité waaw dañuy agité dañuy yëngu donc comme suñu amee taxawaay bu mel nii ba xale yi wax dëgg fa yàlla gis nañ ne amul benn faay ñuy remercier tamit équipe sécuriste yi muy la croix rouge di remercier tamit vraiment ñi nga xam ne ñoom ñooy groupe presse bi ñu àndal donc ñu ngi sant ñëpp daal bàyyiwuñ kenn di gërëm ñëpp di ñaan yàlla na yàlla dimbale ñu ñu yàgg ko fekke te yeneen di si topp ndax defoon nañ assemblée nationale boo ñu ngi prévoir tamit yeneen site yoo xam ne ñi koy tànn mooy équipe pédagogique bi nga xam ne ñoom ñooy xool par rapport ak li ñu soxla ban lieu moo gën a propice pour ñu def ko comme daal asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf comme ñiy santaale tamit Tawfekh Production ku mel ne sëñ Mourtala suñu wërëre bu yàgg la ñu gis seen engagement ak seen professionnalisme ñu leen di ñaanal suñu boroom yokku leen ba ngeen am chaîne télévision yoo xam ne international lay nekk yàlla ko yàlla def ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf وفيما لا تزل ملاذا وصفيا لي قالبا وقلبا kun wali fi lxayaati walada mawti wa fi lxabri wa fi lxasri xada wala tazal li ya xafidu xaamiya wa xaafidan wa xaadiman wa raadiya wa jaaziban wa mursidan muallima wa xaayidan ila alhuda mukarrima wa haadiyan wa naasiran wa mutrifa bi kulli ma yanfauni wa bi ltufa wa bisluka almasaalika وتكفني عن جملة المعاصي ومثلك الرب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آلي وصحبي جميع ثم تحب كل مسلم مطيع مصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغنني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغنني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي